الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 ñu ñuy bàyyi xel imaam yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel daay man ci bu waxtu wi jotee di ànd ak ñun jotaay bi di ci bëgg almisbaax nekk jotaay boo xam ne yéen yéen a ko moom ñun ak yéen ñu di ci ànd ngeen yëg ne seenu jotaaya tax ngeen ñu ciy wétali léeg-léeg ngeen woo ñu jox ñu ci seeni njàngat ak yi nga xamante ne nii rafetlu la loolu nekk ay soññe yu rëy rey ci ñun ñoo ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax yal ñu yàlla boole nangul yitte yooyu yëpp suñu waajur wii di alxaaji Moussa kamara nekk fële ci jàmm gën chef de quartier ñu ngi koy nuyu baax a baax ci ñuy ànd ak ñun jotaay bi la bokk nekk mbokk ci suñu xarit alxaaji Ousmane Niang bu Nget nga xam ne baax moo ñu boole waaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax ci taxawaayam ak yitte yëpp suñu waajur wala di seex Mouhamad Makhtar Ka. nekk fële ca sebi xotaan ñu ngi koy nuyu moom ak waa daara ji yëpp ak waa sebi xotaan yëpp sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Lo suñu jotaayu almisbaax démb bi ñu koy yëkkati maa ngi woon ci ndénkaane yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ndénkaane ba agsi woon ci ndénkaane ñaar fukkeel ak juróom-ñeent yonent bi alayhi salaatu wasalaam am yum ci joxoñ jotoon naa koo tàmbali mu juróom-ñaari yëf yoo xam ne bokkaale yàlla ci la bokk akuk njabar dinaa ci ñëw léegi ginnaaw bi ñu bëggee ci nit ñu ànd ñun jotaay bi ñaan suñu borom subxanahu wa taala mu defal ñu tawféex ndax tawféex daa mel ne ku ko am rek sa yépp tàmbalee baax waaye lu nit mën a am te amul tawféex daanaka rek lam am dana ko ñàkk mooy li ma waxoon démb ne jàmm moo jige loola olof di wax jàmm jige waaye jàmm ku ko bëgg a am faaw nga yaru. moo tax ku am doom yaral ku nekk magit jéem a yaru ndax ab yar du doy mooy tax nit ki mën a mucc ci di tooñ mooy tax nit ki mën a mucc ci ñu di ko tooñ ab yara cay tax a mucc mooy tax nit ki xàmmee li yoonam nekk ak li yoonam nekkut lenn lu ne mu xam fam cay yem ab yara koy may nit yal nañu yal nañu yàlla may ñu yaru su ko defee dinañ am ay teggin te duñ doon ku doyadi danañ am ay teggin te du ñu yóbbee ak tóoy danañ am ak teggin te du ñu yóbbe ñàkk xàmmee danañ am ay teggin waaye du ñu yóbbu itam ñàkk fulla ndax léeg-léeg nit ki ñu ne ak yaru waaye boo xoolee ba ci biir ak way amu ca dara ku waye di lay doon wala ñu ne ak yaru waaye boo xoolee fulla amu ca dara kon nit ki day am fulla waaye am faayida te loola mooy lu baax lum dégg mën caa dugg waaye bu ca noppee gis lu baax nag am fitu taxaw génn ca baset wecc su ko defee fulla ak faayida mu nekk koo xam ne am na ko loolu yóbbe ko ak yaru yóbbe ko ak mat dañuy faral di wax ne ku am doom yar ko ndax faw ab yar mënta ñàkk ñett yi moom benn dana ci yar nit ki ñett yi nag bu njëkk a ñëw rek gën a oyof ba ca def mooy nit ki moom ay waajuram dañ koy yar bu ko ay waajuram yarut àdduna dina ko yar bu ko àdduna yorut bàmmeel dana ko yar ku ne xam na ne waajur wi yar daa gën a oyof yarub àdduna bi ndax waajur ab yaram du weesu li nga sol baaxut bu génn kër gi yarub waajur du weesu ni nga waxe tey bëggatumaa dégg nga di ko waxe ne tuug ngir kooka bàyyi lam doon wax yarub waajur du weesu nii ngay doxe bàyyi ko kenn du doxe nii wala ñi ngay àndal du ñu ñu war a àndal wala barab bi nga toog tey du barab boo war a toog wala bi ngay lekk defeel nii maanaam yooyu ñu yare nit ki ba xam mooy kan ak complexe dañ ci moom ak doyadi dañ ci moom rôle la boo xam ne waajur da koy taxawee njabootam boobu moo gën a oyof àdduna yar àdduna nag kam yar kenn lay doon koo xam ne mën naa am ñu yóbbu ko fa caabi di féetee ginnaaw nit wala mu tooñ ku ko ëpp doole teg ko ci ak yaradiku mu néewal ko doole ba dóor ya metti lool gaañu xaj na ca dee xaj na ca lu ne xaj na ca kon bu boobaa àdduna yar moom daa gën a diis fopp waajur yar waaye yarub àdduna boobu li muy diis diis bàmmeel yar nit ki nag moo gën a diis yal nañu yàlla musal ci nekk ci ak yaradiku ba bàmmeel di ñu yar ndax moom yafay xew dégg rek ëpp na ci waaw yafay xew dégg rek ëpp na ci alxuraan nee na bu ngeen xamoon ñi yaruwut buñ demee ba ne ci dee di sukuraat bu ngeen gisoon li ñu daj bu ngeen fa jógee yéen ñëpp ay yaru waaw tooñkat yu yaruwut yi bu ngeen gisoon bu ñuy faatu lañuy ñuy daj bu ngeen fa jógoon yéen ñëpp ay yaru ndax seeni ruu moom dañ koy ñat di foqar ko wan naa si aati xarxaa waaye walaw tara idi zaalimuuna fi xamaraatil mawti ba aaya ja jeex nga yëg ne yaru sa digganteeg sa boroom am na solo waaye yaru sa digganteeg nit ñi loo ko jënde jar na ko yàlla nañ yaru ñun ñëpp mu mel ne bu ñu yaroo suñu digganteeg suñu borom dañuy xàmmee ruus nag di dox ci yoo xam ne ay caaxaan la ñoo ngi ci njeexitalu at mi nga xamante ne ci lañuy natt yu bari ci suñu yëf ndax ci weer woowu ci lañuy fayeeku ñuy fayeeku ci la ñuy jël suñu conseil ci lañuy ñuy suñu njaboot moo nekk ci suñu carte d'identité kon luñ ko ignorer ignorer am na ci xaaj boo xam ne moom ñun ak moom ñoo ànd buñ demee ba di ko jeexal da déglu ci kanam tuuti journal yi am ñu di la fàttali nan la nangam xewoon na ci at mi nangam ràññiku woon na ci nangam ràññiku woon na ci loolu mooy li ñëpp bokk te ñu mën koo siiwal am na nag yow itam lu ci xew ci sa dund gi yu baree bare yoo xam ne war nga koo fàttaliku bu dee lu bon moom la nga ko njëkk war a def mooy tuub ko tuub bu ca bu ko sax waaj xalaatal 2017 bii bépp bàkkaar boo ci defoon bul sax hésité ci tuub ko tuub ko tuub gu wér gu ànd ak réccu ak daw ko bépp ñaawteef boo ci defoon sa diggante ak nit moo xam koo joteel la moo xam koo wax wax ju ñaaw la moo xam jëw la wala wax direct la joo janoo ak nit ki sa yitte na doon rafetal diggante yooyu li nga ci jot investir ci àdduna ni ko xaymaata te war caa góorlu ba bañ a yaafus ngir mu suqaliku xoolalit ni nga li nga investir ci at mi ci sa digganteeg sa borom nan nga koy sàmmee ba mu doon loo xam ne dana gën a ñoŋ su ko defee njeexitalu at mi yow jullit bi ko defee noonu kenn du am lum la ciy wax waaye rik waaye bul bokk ca taalum pitaar yi bul bokk ci ñiy décorer bul bokk ci bul bokk ci bul bokk ci yooyu dafa am leneen ak yeneen yu muy symbole yoo xam ne bu ci yar sa njaboot bu ci yar sa njaboot waajur yi nañu communiquer ak njaboot gi rawatina ci yu mel nii bu ñu wax xale yi rek ne leen ah li dafa xaraam daat cee yem bañ leen a jox benn argument wala bañ leen a yee ci li ci nekk ci ay danse kilifa day wax ak njabootam gis nga bu njëkkoon nit ñi daan nañ yar te du soxla wax ju bari waaye léegi ab yar dafa ànd dafa war a ànd ak wax kuy yar ku ne te doo wax ka ngay yar mën naa yeex a yaru maanaam wax ja lu mënta ñàkk lay doon luy wax ji mooy ki nga xamante ne day yar njabootam war naa góor góorlu ba lépp lu xew mu yee ko ci gis nga télé bi bu tàkkee nga fay ne xale yi duñ seetaane tele ci kër gi jàpp ne loolu ab yar la doyut moom da doon baax léeg lekk nga seetaanandoo ak ñoom tele ci kër gi nga bokk seetaanandoo ak ñoom télé bokk seetaanandoo ak télé am na luy génn ci télé bi loo xam ne dañ koo war a roy am na luy génn ci télé bi loo xam ne kenn waru koo roy li nga xam ne day génn te ñu war koo roy foo gisee mu génn na nga wax ki ko war a roy mu roy ko lum man li nga xam ne day génn te kenn waru koo roy dañ koo war a moytandiku daw ko fu génne waxal ñi ko war a daw ñëpp ñu samp seenu xel daw ko loolu nag faaw nga di ko won sa njaboot nit dana génn doon ko siiw doon ku naw ci pénc mi te fekk nawut kenn waru koo naw mu génn di la cax la caxi wala ñu bëgg koo jox maanaa bul bàyyi xale yi ñuy seetaan rek rikk waaye na nga wax ak ñoom ca loolee génn ne leen waaye yéen nu ngeen gisee kii ñu wax niñ ko gisee ne xew na moom moom nangam moom moom nangam moom nangam nga wax leen ca lay sa xel communiquer ak ñoom ci loolu yee leen ndax day am réponse yoo xam ne faw ñu am ko ci seen bopp ay tontu la ngir ñu mën a ubbeeku bu dee ñi dëkkee ci taax yi bu dee nag ñi dëkkee ci anam goo xamante ne seen lay dox seen digganteeku bu yar du teleeg rajo mën naa am yàqu fa lu bari ñoom it nañu wax ak seen njaboot ci yee leen ba buñ génn rek am lu leen fëkk loola ñëw fëkk leen boo ñëwee fii tey ci taax yi da nga gis ñu sànku ñu bari ñu mel ne man ci waxin ba ñuy jóge ci dëkk ba di ñëw ci taax yi ay nit ñu yaru lañu woon wala ñu jàppoon ne dañoo yaru lañ ndeke seen yar bi ñàkk a ko suub waaye yaruwuñ ñàkk a yeewu gaa tax ñu ne rëmm ñàkk a googu ñu leen ñàkk yee bañ mel ne ñuy nelaw moo leen di topp ba gis nga daw baatub ñu ne la kaw-kaw nga am na ku mu muy tox daw baatub ñu ne waaji kaw-kaw la am na ku mu muy wàccee tubayam ba muy direeku daw baatub ñu ne waa ji kaw-kaw la am na ku mu mu dem ca bistron ba di mandi wala muy taxawaalu wala muy dugg ci lu mu war a dugg ndax lan day bañ baatub ñu ne ko yow kaw-kaw nga maanaam daa bëgg ñu ne ko yow ku nand te nga yow ku yow nga muy dabu loolu kon nag moom am na lu mu def waaye société ba mu bàyyi koo ñëw ñoom it am na lu ñu def ci moom noonu lay amee fii ci réew mi noonu lay amee ba bitim réew am ko àgg rek daal di bëgg a bokk tax mu daal di accélérer ak bokkam bokke ci bokkin woo xam ni du ko jig ab jullit du mel noonu day góor góorlu ba dara du ko fëkk loolu nag yar la boo xamante ne réew mi yëpp ñoo war a àndandoo di ko defandoo réew mi yëpp ñoo war a àndandoo joxante ay loxo ci taxawe loolu bu ko defee mu def jeexital ci ñun ñoo ngi ci jamono joo xam ne am at a ngi jeex am at a ngi dugg lislaam am na weerum ñu waxoon ne ba mu jotee jàpp leen ni mooy suñ fukki weer ak ñaar ndax bañ ñu toppandoo ndax bañ ñu dugg ci yu doyadi yi wax dëgg yàlla bari nañu ko taxawee ci réew mi def ca la ca war ca nañ ko jàppe ñoom mooy lekkoon nañ ay cere ca tam xarit ga ñenn ña taajo boonoon nañ feete nañ ko rajo yi defoon nañ ci reportage wane woon nañ cere yi wane woon nañ nàngam waaye ñun daal ñoo doyloo wut suñ fee diñ am boo koy seet ba mu yàgg li ma doon wax ci wàllu doyee di ak nekk al toppe day mel ne du ñu bàyyi maanaam moo ñuy toppaat ba al toppe googu lu ñëw ñu ànd ca du problème mu dañoo desal ginnaaw feeti diine yi boo seetloo ñu ngi koy feeti tabaski dëkk bépp day fees dell ak xar kon tabaski nañ korite togg nañu laax lu ne def nañ ko korite ba doyal tam xarit noonu ak suñu yeneen feeti bopp yiñ créé ci réew mi te ko diine ala kulaalin yépp feete nañ ko ba mu doy waaye buñ ñëwaatee ci bis boo xam ne lislaam danaan ñu bu leen ko feete it ñu baree baree baree bari ca ña doon taxawe bee ñooy taxawewaat bii fees ko nga yëg ne kon bu njëkk bañ doon taxawee dañoo ëppoon xar yi di leen noggutu rek waaye bu doon ak jaamu yàlla lañ ko jàppe ba tax ñu rey xar yi tey jii bu ñuy rey ay ginaar ci feet goo xam ne lislaam nee na ñu yéen du seen gos ci waxin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wuute leen ak ñoom wuute leen ak ñoom wuute gi mbirum pas-pas la gis nga bul dugal sa santiment ci li may wax naan jamono weesu na foofu wala ñii samay dëkkandoo lañ wala nangam déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ëpp tolérance te doxal na ko ci ak dundam ba mu yaatu waaye mbirum pas-pas la moo xam ne dañoo bëgg nga fiir ci dañoo bëgg nga fier ci waaw dañoo bëgg nga am péete wax naa ci ojo boobu ma defoon te mu tasaaroo ci whatsapp bi yépp ne yonent ne jullit yi moom dañ leen a digal ñu gëm yonent yépp loolu ab aaya la bu ne wétt ci alxuraan muy laa nu farriqu bayna ahadin min rusul ñun amuñu yonent bu ñu gëm bàyyi ba ca def tey jii jullit bu ne woon gëmatuma yonent yàlla musaa jàpp ma ne ab yonent la weddi ko ñu ne ko ab yéefar nga bu dee réew muy àtte woo lislaam la teg ab yéefar lañ koy teg ku ne woon Muusa dub yonent ku waxoon ne Ibrahim dub yonent àtte yooyu lañ koy teg ku ko waxoon Isa àtte yooyu lañ koy teg waaye nag da leen di gëm comme ni nga gëmee yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mbirum pas-pas la mooy gëm ne ñoom ay yonent lañ yu yàlla yónni foofu lañ la yam loo léegi nag topp topp mooy baatub roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy def moom la ñuy déglu mu wax ñu li ko yàlla wax lam ñu wax ñu def ko te moom lim ñu wax mooy Isa jaamub yàlla la nekk yonentam Muusa jaamub yàlla la nekk ndawam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaamu yàlla la nekk ndawam waaye Muusa Isa Ibrahima ku man di doon su fekkee woon jamono yonent yàlla Muhammad jamono ji ñuy dund amut lu koy jariñ ci àdduna lu dut mu topp ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñoom seenuk ay fégal na bi moo aaye ak ayam du fégal ba mukk ndax moo mottali yonent yi te mooy seen njiit te it mooy ki mujje ñëw te lañu yoroon yor na ko ba noppi ëmbaale na ko yóbbu mbokk yi ban taxawaay la jullit war a am ci ginnaaw yonent boobu alayhi salaatu wasalaam ci déglu ay waxam moo ne am na ñum joxoñoon xas leen baadu yow mi jàpp ne ñëpp a yam da nga cee bëgg a bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na du ngeen dañ di doye di di topp ñi nga xamante ne ay nit lañ waaw ngeen topp leen rek doye di lool ba ñoom sax buñ duggoon ci waxu mbëtt ak lu pax ma ñàkk ñàkk solo ngeen ngeen raam fekk leen ca biir pax ma ñam ko doon wax ne ko ñooñu ñan lañ yaa rasulallah xanaa du yahood yi ak nasaara yi mu ne leen bu dul ñoom ñan lay doon kon léegi dugg ci paxum bët li muy tekki mooy lañ dugg lum ñàkk-ñàkk solo nga xam ne yow xam nga ne lii amul benn solo waaye léeg-léeg complexe dugal la ci léeg-léeg ñu ràbbal la ay luwaa yoo xam ne laxas nañ la ko ba mu fees la te mënoo cee génn te loolu suñuy njiit ñi ñu donn tubaab bi yekkal ñu leen ñoo ko yor te mosuñoo am volonté bi yemale engagement bi yemale wala jullit yi gis seen bopp ci seen i mbir jafe na waaye nag mën nañoo wax ne lum jafe-jafe jullit yi liñ moom ñu ngi ciy jot ñi ngi tabaski ñu ngi korite ñu ngi nangam nangam léeg sax ñu ne tabaski benn fan lañ ko may feet korite benn fan lañ ko may feet waaye lislaam amut problème mu ñaan ay feet yu bari ci bis yooyu ñu la cay may ñaar ak ñett ak ñeent ndax li mu jàngale woon tey bu fekkoon dañ ko ne woon lislaam rëddal ñu feet yi du la ne tabaski nañ ko def juróomi fan feet wala nañ ko def une semaine feet wala ñetti fan feet mën naa am sax lislaam bu ñëwee danaan kon nañ ko def ñetti fan ndax ñetti fan ya sax di duggaat ci jaamu yàlla mooy ku ko amut ci bis bu njëkk bi am ko ca ba ca topp am ko ca ba ca topp loola mën na koo layal waaye bu fekkonte ne du loolu day bu jàllee ba noppi ku rendi sam xar feet ga jeex ca bis ba boo xëyee lislaam ne la demal demal liggéeyi waaw demal liggéeyi ndax moom day encouragé nit ci liggéey day encouragé nit ci liggéey kon toppandoo bu mu ñu yóbbee ci ne ñii kat am nañ nàngam ñun nañ am nàngam ñii am nañ nàngam nañ am nàngam ñun kay dañoo war a seexlu rek wax ni daal lii suñu yoon nekku ci du suñ mbir génn nañ ci baset wecc bu ko defee mucc daal ñuy ñeel yàlla nañu yàlla defal ñu mucc danañ ci dellu siwaat insha allah suñu ndénkaane bi ma doon daaneele ci ndénkaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sama ndénkaane eh, fukkeel ak juróom-ñeent yonent bi alayhi salaatu wasalaam am juróom-ñaar yum ne nañ ko moytu juróom-ñaar yooyu mu tudd ca bokkaale taxawoon naa ci ki lu am solo muy ak njabar njabar nga xam ne ak kéefër la waaw walakin sayaatina kafaru seytaane mooy yéefarloo nit waaw xamal ko ak njabar yu yuallimuuna naasa sixar waaw jàngal nit ki ak njabar mu doon koo xam ne ab jabarkat la yor ay xarxa fuufaam aay lool nag aay lool ak a bari sa yu neexut te fekk ay nit a ko def waaw bari na sa yu neexut de yàlla xam na ko ci réew mi te fekk ay nit a ko def waaw njabar ay diggante ba ku jëkkër ki bu xëyee liggéey jabar ji namm ko buñ jugee ci néeg bi ñoom ñaar kenn ku ne sa kanam di niroo kanamu bukki ci sa moroom waaw ñu bañante di xiiroo ko ŋaayoo boo leen naajoon lu ngeen jotee mënuñ laa wax lan mooy baasu problème bi waaw problème bi tax mënuñoo nekk dëgg-dëgg mënuñ laa wax lan moo ko lan moo ko sooke fekk am na lu ne ci diggante bi moo taxoon ma wax démb ne ak njabar kenn du wax ne amut waaye dañuy wax ne lislaam nee na yéen bu leen ko def bu leen ko def daf ko tere def gi moo araam waaye tëgtalewul ne kenn mënu koo def nit wala ku ko def nit du ko jàpp lu dul ko ci yàlla musal waaw lu dul ko ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla musal junjoon naa démb yenn ci yoo xam ne ku koy jëfandikoo suñu borom dana la ci musal danañ ko gën a yaatal bu ñu jeexal tomb boobu jagleel ko waxtaanu boppam insha allah waaye ak njabar a ngi noonu suñ borom nee na ñi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ëllëg yowmal xiyaam duñ fa am dara waaw ëllëg yowmal xiyaam duñ fa am benn cër wala qad alimu la man istaraahu maa lahu fi l axirati min xalaaq wala bi sama saraw bihi anfusahum law kaanoo yaalamuun yàlla nañ ci yàlla musal duñ fa am benn cër fa naraa xalqan kathiran min aldalaala yadxuluuna fi lsixri wa yadunnuuna xaraaman faqat wa maa yascuruuna annahu lkufru fa yadxuluuna fi tacliimi lkimya nga gis nit ñu baree bari dañ rëpptalu jëm ci ak njabar parce que dañ naan dafa xaraam jàpp ne sax xaraam gi dong ci la yem maanaam dafa def waa dafa def bàkkaar dong te yëmut ci def bàkkaar waaye day génnee nit ki ci diine day génnee nit ki ci diine gis nga bis boo fi demee ci ab kat waxuma la nga dem ñaanlu ji ñaan am na waaye ki lay ñaanal lan la lay ñaanale ay laaj la bul ko dégg daan ne nee nañ bu kenn ñaanlu aha kay bis bu set ma tudd ay nit ci jotaay bi nuyu leen te man xam naa ne ñoom ay ay nit a ngi ñëw ca ñoom ñu leen di ñaanal ci alxuraanul karim ñu leen di gindi di leen teg ciw yoon waaye loolu bokkut ak li may wax te alxuraan di ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko moytandiku muy ak njabar dañoo jegee nag dañoo jege réew mi léegi ak njabar daa bokk ci li fiy dundalaate ak bëgg a dund day tax nit ki di jabar léeg sax nit ñee la koy proposé njabar gi nit ñee la ciy xiir yow du doon sa mbir waaye nit ñee lay poussé ci nga nekk ab jabar doo ko jublu waaye dañ lay poussé ba nga nekk ab jabar far force ndax nit ki dana ne damaa gént damaa gént di daw daw yu méttee métti di yéeg ci am montagne nga ne ko ah, montagne da daa kawe kon bi nga ci yéeg di appart xam naa ay jafe-jafe la mun la waaw jafe-jafe yooyu lan mooy saraxam léegi yow tàmbali na laa dugal ci benn galgal boo xam ne faaw nga nekkub jabarkat ndax da ko digal sarax léegi sarax ba indil la nangam wala ñëwal ci kër ga wala sangoo lii wala diwool lii wala rayal lii li waxoon naa démb ne lu lu la ñuy digle gën a ñàng rek lu la ñuy digle gën a ñàng rek léeg ñu gën caa sawar moom daal na ñàng ñàng ñàng ñàng ñàng bu ko defee ñu sawar ci waaw loolu baaxut démb jotoon na maa joxoñ ay tomb yu bari ci ay xeeti njabar ngir wane ne daa bari ay xeet waaye nag yépp a araam yépp a araam day rey waaw day rey bu ko defee ñu moytandiku ko bu baax a baax ci bàkkaar yu mag yi la bokk te bokk na ci yi nga xam ne day dugal nit ki sawara bokk na ci yi nga xam ne day yóbbe nit ki itam mu nekk ab yéefar yal nañu yàlla musal ci nekk ab yéefar kon li may tëje jotaay boobu di ko tëje tomb boobu ci benn ci juróom-ñaar yooyu di ñaareel bi di njabar mooy nag ki ci bëgg a mucc bu mu ko defi kenn loolu bokk na ci dem di njabari nit ñi ba noppi naan nag defal ma mucc ci njabar liggéeyal ma diw waaye man defal ma bu ma kenn mën a liggéey loolu du maandu te yàlla itam du seetaane noonu kon fexe ba bañ a njabari kenn beneen bi ci topp itam ngay muslu nag ngay muslu muslu gi mooy yéene ñëpp jàmm waaye doon ab jaamukatu sa borom waaye nag doon kuy saxoo am njàpp doon koo xam ne da ngay jàng alxuraan doon koo xam ne da ngay tudd sa borom subhaanahu wa taala lu bari waaye nag di jëfandikoo ñaan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam joxoñ na ko tam bokk ci yi nga xam ne day musalaate ci ak euh, day musalaate ci ak njabar am na bu ma ci wa masoon a wax ma waxaat ko tëje ko jotaay bi man ngaa wax audu bi kalimaatillahi taamma min kulli saytaanin wa haama wa min kulli aynin laamma ma waxaat ko audu bi kalimaatillahi taamma min kulli saytaanin wa haama wa min kulli aynin laamma xam naa ne maa ngi jéglu baax ci fitna yi mbind mi ma leen di tegaat ak fitna yi mu raw leen ngeen di kër këriwaat waaye bari na lool bi rabbil falaxi bi rabbi naas ayatul kursi ak muslu suñ borom subxanahu wa yooyu yëpp lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle la ngir ñu mucc ci waaye boobaa nag ñu fexe wax nag ñii njabaraate nañ bàyyi njabar gi. yaay yi nga xam ne léeg ñu tegoo seeni kol ne sama doom ki mu bëgg du ko fi takke dem ci sëriñ ba ne ko dëddale leen àdduna jërul loolu. àdduna jërul loolu xamuma dana ko fi takkeem déet waaye yaa ngi génn ci diine te yëgoo ko yow soxna si nga xam ne da ngay dem naan sama jëkkër na ma topp ni dawkat bi toppe ci ginnaaw boroom lu mu liggéey na ma ko jox ma daan la toppam déet waaye la nga cee amee jëru ko te mën ngaa génn ci diine yow bi bokk nit ki liggéeyukaay ne moom mi ngi avancé te man avancé wu ma promotion yi mu fi am du ko fi amee tax nga fas yéenee dem liggéeyi ko di njabarlu ji xamuma loo cay amee waaye jëru ndax yaa ngi génn diine te yëgoo bu ñu yëgee ñun ñëpp gravité bi mu am ak ni ko lislaam moytandikuloo danañu yóbbu ci njàmbaar danañu yóbbu ci bëggante dana tax ñu rafet njortu ci suñu biir waaye nag buñ ñaanee suñu borom ñaan gi dana gaaw a nangu te buñ ko musloo it suñu borom subxanahu wa taala danañu musal moom mii aji musali ji yal nañu bokk musal musal leen te musal ñu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa ne jamono ji léeg-léeg ñu nekk ca standu Sud FM ba nekk ca foire ba wala bu Ali Imran ba Oustaz Alioune Sall di nekk ci suba gi. ku ko fa fekk ñaan yi ngay soxla yëpp dana la ci jàppale te moom mooy kilifa gi dana la ci gën a yaatal gën la cee dugal ci ay ruq incha allah ñun tam ku ñu fekk foofu ñu gën cee jàppalante ku ñu jot ci suñ téléphone itam bu fekkul ñu xat lool dinañ jéem a jàppalante ci loolu donte nag jubluwaay bi yàlla rek a tax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ak leeral la ndax léeg nga dégg ko waxtaan joxe ay ñaan waaye am na lu ne ca ginnaaw loolu ay bunt yu yuy ubbeeku.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 seen mbokk Mbacke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu